ke balla loo ma deseel bilaay loo ma deseel lu ma ragaloon nga dàq mu dem lu ma soxla metti nga ñoo di mu ñëw maay sax di sant sëriñ saawaay sama sang auzu billahi min aseytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama taslima barkeb Serigne Saliou barkeb Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ñaanal saa borom yàlla dafa ñu tawféex fii ñu leen baaxoo di leen nuyu ci suñu télé bii di Kifne TV tey nag ñu déplacé wu seet si ndaanaan koo xam ne kenn dootu ko laajte kum doon ñu gën ko miin ci Serigne Pape Mboup mu Serigne Saliou ñoo ngi ziare ñëpp. di ñaan cheikh muntaha mom serigne basirou sa borom yalla yagal bu sunu kanam dara ji serigne saliw loolu ñu ñaanale khalifatu mam cheikh ibrahima fall serigne cheikh jëmb sa borom yalla yag bu sunu kanam kon dañuy jublu ci sunu waxtaan nuyu serigne pambo alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh cheikh massa ñu ngi lay ziaré bu baax baax di ziaré bokk talibé yi nga andal li ñu nekk ci wàllu technique bi di leen bëgg mm-hmm. di siyaare sama gars yi nga xamante ni saa su ne nanguñ ma wéet benn yoon fu ma nekk rek ñoo ngi fa di waxtaan ak man di ma di ma di ma di ma di ma yokk doole noonu la ñuy siyaare Serigne Mountakha Bachir di ko ñaanal bu yàgg fi lool te ànd wér Cheikh Saliou di ko ñaanal bu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy Cheikh Fall di ko ñaanal bu yàgg fi te wér noonu la ñuy ñaanalee Serigne Saliou Ndigal Thioune sama sang ba di ko ñaanal bi yàgg fi lool te ànd ak yéen di la bëgg bu baax a baax Cheikh Massamba ci ci ci ñëw gi ngeen ñëw ci man ñu fas yéenee waxtaanee Serigne bi fas yéenee waxtaanee bi fas yéenee waxtaanee kéem lu ñu Serigne bi dimbale di ñaan ci barkeb Serigne bi nag lu ñu fi wax mu jur njariñ ndax wax mu jur njariñ Serigne bee ko moom. sañ nañ sabab lu ci moom mhm. ndax sunu wax bu génn du ko génn. yalla bu nu seydane ban ba wax lu nu kenn di jéppee yalla nu yalla ci serigne bi tek loxo ba lu nu wax bu jur njariñ ci barkeb serigne amin yalla na lu nu wax mu jur njëriñ te inshallah taala am nañ ci yaakar ndax yow ku agnal di bayyi xel la sëriñ Pap Mbuub werekaanu sëriñ Saaliw werekaanu serigne beccu ciun serigne Pap li ñuy seruah suñu waxtaan ñi lay tewlu buñ bëggoon xam serigne Pap ana lan nga leen wax li ma leen di wax mooy présentation bi benn la. ndeysaan. du mës a changé. Mhm. ndax identité la. dëgg la. Pape Mboup élément Serigne Saliou la. dëgg bépp sëñ Béthio. dib cantaakon. wallaahi. juddoo Bambey. ci yoroo waaye nag li ëpp ci sama ci sama ci sama kii maa ngi ko defee Ndakaaru gi. Mhm. bu ma nee Ndakaaru nag Pikine tax may wax. dëgg la donc émission bi tey jii. Mhm. Euh, dama koy jël jagleel ko. banlieusards yi. macha allah ndax nous sommes des pires produits. n'est-ce la banlieue. ndeysaan ngi bu baax a baax Pape Mbougal. Mhm. Euh, noonu ba la koy xewoon rek. ndeysaan Serigne Saliou la. ndokk taalibe Serigne Béthio du cantaakon. ndokk macha allah. boobu élément Serigne Saliou la di cantaakon bu ñu nee cantaakon fii ci réew mi ak meneen réew xel yépp ci kenn lay jëm muy Serigne Béthio moom Serigne Saliou Serigne Pape am na lan moo la dugal ci woy Serigne Saliou. woy serigne bi mat naa ni dañu dajé iya tawfiq fu serigne bi ndaysan ndeysaan bokku ton ci programme bi di ma naan bëgg woy sëriñ bi taxut nga di ko woy déedéet ñàkk ko bañ a bëgg a woy du tee nga woy ko ndeysaan sëriñ bi mooy tànn ay wéri kanam wér na de ñun def nañ comme ni ndaw yépp di def ndeysaan menu ne kebab bay nekk nañ ci daara ja mm-hmm. di napp na bi ci xasde yi ndeysaan di napp na ci man ku ne xam ne dama daan bàkk ci dama daan bàkk ndeysaan bàkk laa njëkk def mm-hmm. euh, biir bàkk bi mm-hmm. un jour ki waroon ñëwul ndeysaan boobu sax laa doon di ndaw comme jëw sëñ bokkum moom suñu suñu topp jëwriñ ja am na yàlla yokk ay leeram am na lu mu seenoon ci ñun te xamuñu ko ci suñu bopp jour boobu daal mu woyloo ma ba ma woyloo nag jàppoon may woyantu ndax li njëkkoon nag euh, doon mit ci man mooy nooy def bu bind lu kenn mësul dégg ci mélodie ba mm-hmm. ak ci contenu ba ndax man ngaa way waaye woy nag lu lu jur njariñ yombul mm-hmm. loolu lu ma jaaxaloon la waaye ci ndimbalu sëriñ bi daal mm-hmm. ba ñu ca nab nabee topp ci ci woyu yi di di di di di ko woyantu. man damaa daal dem ba sax bu ma mës di émi mm-hmm. damay dem ba damay jël sa prononciation. say intonation dama koy ñëw bu dee da dotom. Mm-hmm. dinaa fexe ba dotom. bu dee da bar. Mm-hmm. dinaa fexe ba bar. Euh, lu ci danaa fexe ba. ba nuuru nuuru loolu. waaye dama mës a gëm ni nag warooy dundoo pire. déedéet. dama mës a gëm ni. sëriñ bee defar ñëpp. waaye man mii moo ma defal. wallaahi mu demee ba yee ko ci man nag mhm. ma xam ni nag jaar jaar mënul ñàkk mhm. te loo doonul taalibam doo doon sëriñam te loo tarbiwul mënoo ca am njariñ dem naa ba sëriñ bi dimbalil ma boppam nag mhm. jour bi ma njëkkee bind loo xamante ni samay mbiru bopp la dama ko woy ba pare suñ jëriñ jëne ma diw moo ko woy lii du yaa ko ndax woy wa jàppoon na ni kuy door du woyee noonu waa ci ndimbalul sëriñ daal noonu lañ ci demee moom mu doon demee à un moment ñu dem ba xam ne nag lii biirum sëriñ bi la nag. Mhm. ñu conscient ci nag. vraiment de loolu nag sëriñ baa ngi ci dimbali macha allah. ndeysaan ah, ndax carrière bi ni doon doon daw. li du mbëri naan dañoo mbappal. du yu ko faale. Mhm. moom may ay woy. Mhm. du du du kër dogo ma may ay woy. donte ci ci wàllu kër yaay. maa ngi bokk ci kër dogo ci wàllu kër baay maa ngi bokk ci yu faale. waaye loolu lepp manes na ni don don la waye nak duma ma ay way man way Serigne Saliou moko jox. ndeysaan way yi Serigne Saliou moko jox Serigne pap mbou di wéré kanu Serigne Saliou waye pap mbou don ko doy war sa bu defee lenn rek àdduna sépp di ko coow Pape Mboup loolu li naan jambar amul kuñ dimbali am kuñ dimbalul mëno leeleel wax nga ko légui lu juddu ko rafet a tax pap mbou di way déedéet da nga mbapat waye pap mbou ci digg Serigne Béthio boo ñu ko doon misaal ak naan nga ñuy misaal sa diggante ak suñu béykat. waaw waaw sama sang ba daal. Mhm. yàlla na yërmande mu gën a yokk ci ñun. diggante sëriñ ak taalibe. ndeysaan. diggante wayjur ak doom. ñu mhm. jaar fu bare bare bare bare. ndeysaan ma di ndaw ndax man su ko jébbalu ci sëñ béykat laa ko mos a def. te ku ne xam ne ni samay waajur ñoo ngi woon ci kër ñoo ngi ci waa Daaru Salaam bi lañ bokk ku ne ne waa Daaru Salaam maam kër bu ndaw déedéet ah ku fa bokk ne rek <laughs> war ngaa tëju ci waaye nag am mm-hmm. jagle day am man jàpp naa ni Serigne Saliou euh, moo ma defar ngir sëñ Béthio man soo ko jébbalu ci sëñ Béthio laa ko jëkk a boobu tout tànk la tournée yooyu mu naan def ba ñëw Bambey man je suis de Bambey. ndeysaan ñuy Bambey maanaam jëmbal ko ñëpp rek jàppoon ne di fastan la rek. ndeysaan ñuy dem di jàngantu li naan xasida bu jiitu ci sa dënd bii. Mm. mën naa defar lu bari bari. wallaahi wallaahi. suñu béccoo suñu béccoo di naan daa xam ni ñuy ni ñuy ni ñuy defaree ndaw. Mm-hmm. ni ñuy defaree jeune jeunesse. ndeysaan mu ñu jëgal ñu ay mafaatihul jinaan. ndeysaan ñu tàmbali ci alhamdulilah balaa si visa financier naan. ndeysaan malaktu madalia. ndeysaan yesuuru madal xabiiru. <laughs> wallaahi ndeysaan neex. Mm-hmm. nekkati loolooy sunu defal ci ay tok lam na bi ci de yooyu see lépp suñ béykat la nak wallahi bu ñëwee ñu tok déglu ni ñu jàng xasida. bu mm-hmm. ñu jàngee xass de pare nak doo dugg ci woy yi. Mm-hmm. woyal sëriñ bi. ba mu neex. ñu dugg duggatal ko. waaw bu sedd la berne. si béykat daal xamal ñu nag luy jëfal Serigne Touba. ndeysaan xamal nañu ne Serigne Touba xam afistema seen ay tafaatiri fanaa tëkkun mm-hmm. an xidmati bi faatiri. wallaahi denc naa xeeti xam moom ñoom nekkul ci ay fekk. loolu lenn rek la ko mën a may mooy bi xidmati di ko jëfal. jëfal Serigne Touba moo lay jëriñ fi moo lay jëriñ fa la jóg. ndeysaan ñu tàmbalee jëf togg àllarba. donc mooy donc tarbiya yi nga xamante ne ñoo ne xel koom te mm-hmm. tey xewlu. Mm-hmm. seen berne yi ñun ñu ñoo ko yoroon. sax ci sëñ Béthio gu ngar daa joowoon seen paj ma seen yére ya. togg àllarba chaque chaque àllarba. ñu ñu dajalé koppar dugal ko ja iya. sak samedi berde samedi nag yi sëñ bi suñuy dërëm suñu ñaar di ca dem su màggal jotee ya, lu ñuy doon doon ndaw bu mënta jënd xaar jënd ginaar dana jënd bu mënta jënd xaar ba jënd ñu nag jënd ñu ginaar dana jënd ginaar ndax rek jëfandikoo bayit ba sëriñ tubaa waxoon ñu hmm. ko lekk dalee ci ginaar ba ci gile du ci waaye ñëw sant leen ko yàlla loolu nag sëñ beccu moo ne moo ne ci dimbali nag noonu tey la xamal ni daal kaañ wi daal mooy donc bu rax la ni dem nag ñuy dem a dem di woyantu jour bi nu njëkkee woy te ku ne xam na ni sëñ Béthio rafetlu wuti waykat. déedéet. sëñ Béthio. Mhm. rafetlu ko rafetlu wuti ay waykat. déedéet bu ma waxee. Mhm. Euh, nii sëñ Béthio ay ay ponkal rek ko daan wayal. wallaahi wallaahi. ah bu ma ci bu ma kenn rek. ndeysaan. Euh, kooku nga xamante ni moom la àddina sépp xam li ma naan jamono ji moom. Mhm. moom moom moom moom moom moom Serigne ko def ci biir xol yi. moom Mouhamed Niang. macha allah. boo génnee léegi. Mm-hmm. nit ñi moom la ñuy déglu. wallaay. <laughs> nga dem Touba. moom la ñuy déglu. wallaay. nga dem France. Mm-hmm. Mouhamed la ñuy déglu. ndeysaan. nga dem Casamance. Mm-hmm. Mouhamed la ñuy déglu. sa biir kër. moom la ñuy déglu Mouhamed la ñuy déglu. bi la. ndeysaan. jagleeb sëriñ bi la. di ko ñaanal yàlla na ko sëriñ bi gën a teg loxo. amiin amiin ndax man dama mas a gëm sëriñ Saliou ak coppam ku ci ku ne lam sa werekaat. Mm-hmm. ah kooku rafetlu werekaat. ndeysaan ah ba tax di siyaare werekaat yëpp. bëgguma lim ndax man ñëpp samay waay la. ndeysaan ñaanal jàmm ak tawféex. Mm-hmm. Ah, daal ci nekkee ba si nag ni ma dama ni kenn dàqu la roy. ndeysaan. wax ci kàddu yoo xamante ni nag du maa koy jugé. ndeysaan dañ gëm naa ni. Hmm? Mm-hmm. réew mi daal Mouhamed la ñuy déglu. kéem taal la réew mi Mouhamed la di werekaanu Serigne Saliou di taale bépp Serigne Cheikh moom Serigne Saliou waaye lépp tawféex la di ko ñaaral saa yàlla defal ko tawféex Pape Mboup ndeysaan nga doon ku ñàkk ñaan ndax lii dafa yombul ci werekaan. ndax wax sa mbaaxu moroom wàññiwul dara sag mbaax te cëru nit lu waay bëgg bëggit ba fa fa yàllay defaree yàq àggu fa lii mooy cant gi lii mooy ñi nga xamante ni topp nañ Serigne Saliou ndax kat Serigne Saliou defaram du yàqu fii du yàqu fële lam ne woon Serigne Béthio yaay man maa di yow kon loolu firndeel nga ko tey jii ci Mouhamed Niang ñoo ngi koy ñaanal saa yàlla defal ko tawféex defal ko santu daaree ni ku mën a way la mm-hmm. yàlla na saa borom bàyyi ko baatam saxna ñepp yalla bu mu ci dara ji ci mohammed ñang ku baax barke Serigne Saliou waaye pambu dañu lay bàyyi rek nga bégal soppé yi ndax yàkkamti nan ko ndax pambu ca mën way pambu ca sañ sa ba no ngi ñaan sa borom yalla defal la ñu bàyyi la soppé yi nga bégal leen ko jox la daan joxe Mbakke moo ko ràññoo daarange li mu tey daa ëpp doole. Mbakke moo ma woon la waate Mbakke ko sëñ bi lay ko neex mu fi mu jaar si béyee coono amas te jalak musi tey ko lu ñu mel masa xew bi lay lii ki ko fi def de mooy Sëriñ Saaliw moo see xaloon maam Cheikh Anta mooy borom daaru salaam maam Cheikh Anta kooku mooy borom daaru salaam maam Cheikh Anta moo njëkk a ganale Serigne Touba maam Cheikh Anta borom dërëm mangërëm maam Cheikh Anta dellu bayal Cheikh Ibra Fall Babul Mouridine may sa bigee Kumba Fall Babul Mouridine Ahmadou Fall Seer Njaay babul muridi dëgg dëgg góor ya bu laa faal babul muridi tey mu def jëmmam ja sëriñ bi cucuut Mbàkke moo ko la mu daan joxe Mbàkke moo ko rang lu mu daan range lu mu këpp dal suuy fépp taajum ndoxit luy wootal janaaw waaw nit de du dees luy wootal janaaw waaw nit de wenn këpp dal mal suuy fépp taajum ndoxit luy wootal janaaw nit de du dees luy wootal junani junane mutiri yow ba jawaax ne mu ñëw ak kunam mutiri yow ba jawaax ne mu ñëw ak kunam way ko wala fi dem daf may gënal ay waxam de moo gën a ñëw puso ay waxam de moo gën a ñëw puso wisal na ñëwoon wisal nañu tey wisal na ñëwoon wisal nañu tey ak ku ci bëggit la wax mu na saf galawaas ku ci bëggit la wax mu na saf gala nee leen moot rak mu ni moon ki moo dàq feebar yeeg balaa yi fi ki moo dàq feebar yeeg balaa yi fi ba mu naan te ibal batal ko tey kenn xamul la waral deuxième guerre mondiale kenn xamul la waral deuxième guerre ko jar nanka tumbe moo ni woon sëñ bamba ko jar taraw lis de ko def ku ko muy perte nga wa taraw lis de ko muy perte nga fekk naa nit ci di ko muy jukunam fekk naa nit ci nu ne di ko muy jukunam te ko geebi laa waaye am na sëriñ te na sëriñ xanaa loolu lañu naan am nab sëriñ maami soxna astu abooy sunu sëriñ waaye ku jaag kit dafoo jaar woo ko wóolu ku jaag dafoo jaar woo ko kaamil ba mu bindoon yàlla bëgg ko na ruuy texe ëllëg moo di njëkk cay ruuy texe ëllëg moo di sàkk la ko may soppey baayu beewe bur yàlla ko may soppey baayu beewe nday jaati baayam ci seenu askan baayu beewe nday jaati baayam ci seenu askan baayu beewe nday jaati baayam di jaaya bamba di baay ba من يشاء ولا ذو الفضل العظيم ولا ذو الفضل العظيم والله يدعو إلى دار سلام باي سخن بين لبم دزيون باي سخن بين لبم دزيون بدك الجمال كان سمو إذا نجل سبات من يوم الجمعة إذا نجل سبات من يوم الجمعة ci jumaa looloo waral moo njëkk jiite ci jumaa looloo waral moo njëkk jiite ci jumaa atisbaari aljuma wal xutba ba siiw na atisbaari aljuma xutba bu gàtt baaw waalam mooy jariñ baayu meen xutbam bu gàtt baa waalam mooy jariñ baayu meen ne daam la ñépp soxla daam la ñépp soxla ñun ñoo ko am ne daam la ñépp soxla ñun ñoo ko am ne daam la ñépp soxla ñun ñoo ko am jaay juralam dégg ko taalibeem rëy na xam nga ni loolu rëy na xam nga ni loolu rëy na sëriñ Fallu tuutul doomi Bamba yi tuutul sëriñ Fallu tuutul doomi Bamba waxatoo leen sëriñ Fallu tuutul wax ko ca kaw Serigne xam nga ni loolu for xam nga ni loolu rek Serigne Fall mu tuutul doomi Bamba yi jërëjëf ndeysaan Serigne Pape Mboup lii doy na waar ba yegg ci loolu lii ngi woy ci Serigne Fallou ndax tey jii xel yépp dem na ci Sëñ Fallu rawatina weeru mag bi ñu nekk muy weeru rajab di ñaan doom ju baax ji Sëriñ Abo Baraka sa borom yàlla yàggul suñu kanam na nuy ñaanee Cheikh Abdul Karim mi nga xayta ni la ca maamam lépp ndaysaan lu ci ëpp lu bëri ràngoo na ko waaye Pap lu muy diggee fi yow ndax Pap loo dégg ci moom rek tay di gat li gëna a doy waar ci Pape. macha allah très bonne question. ndax mbir la mo xamante ni wax na la ko sànq sama kaddu kàddu mbirum Serigne sallu ci wér na Serigne bi bu la liggéeyloo. mo lay jox ay jumtukaay. dëgg la. euh te li luy liggéel Serigne bi. moy suñu jama hmm moy suñu or. hmm moy suñu adina moy suñu alakhirah ndeysaan bu koy faral di wax bu ma demoon ba toog ci fauteuil présidentiel damay woy sëriñ bi. donc man lii ngi yi def man jàngoon communication laa def. ndeysaan après le bac j'avais une formation de trois ans. ndeysaan ma licence communication dans le cadre général. ci dama naan bu ma demoon ci fauteuil présidentiel damay woy sëriñ Saliou. am nga jàmm ñu doon xam ne nga lu dëggu la ci man. ndeysaan tey pale bee ñu ne monsieur Mboup moo fa nekk. Mm-hmm. boobaa. buma ma prêté e serment ba paré jour e prêté e serment bi album lay génne ci Serigne salif ma sha Allah woy Serigne salif loolu lu ma gëm la té dama ma koy na naa amu guma BFM ci la am sama BFM ci la am sama bac ci la am sama licence en communication ma sha Allah aw ah, nag mbind way la way lo xamanteni na ci way bi moy serigne Fall ma ngi wax nan kepp dër suuy pepp taajum ndoxi ndeysaan li wotal ngenaaw nit du dess ndax it ku def li ñepp di def yaa ñëpp eh. waaw Mm-hmm. ku def li ñëpp di def wallaahi ñëpp payam te dañoo gëm ne sëriñ bi woy loowu cuune déedéet kon ku cuune yow la wallaahi kon nag day day am sa gëstu bopp la mm-hmm. man daal gëm naa ni am naa yitte am naa yëg-yëgu mm-hmm. du woy mukk loo xamante ni bu génnee ku ne da koy gaaw man wala ku ne da nga naan lii woyu élémentaire la wér na ndax way day am niveau. way. day am niveau. wér na ca ca ca ca ca ca mélodie ba d'abord. dëgg la waaye sëñ Pape xam nga way mélodie da ci am solo waaye way day làmboo ndeysaan te boo saytoo say say njàng yépp da nga gis seen ndeysaan di wér mooy li nga wax mbir du génn tey tey tey rek nit may ko tey tey tey loolu doy waar la Pape loolu looy toog di xalaat la wala. da ngay tëju sa biir di ko liggéey ndax yombul suñ ba oh li wax naa ko sànq. Mhm. yombul. Mhm. waaye nag daam loo xam ne day dem ba sëriñ bee koy def ci yow ba xam ne sëriñ Moussa ngi lay sa kër ba man yombul sax ma di koy wax. Mhm. man saa su ma bëggee bindooy bindooy. allahu akbar chaque jour su ma xëyee bind bees ci sëriñ ci loolu nag du man sëriñ bi. loolu jagleel la. waaw loolu man saa bu ma xëyee. mo bëggee bind lu seribu ci sëriñ bi pour bind lu bees ci sëriñ bi te lu ma wax man naa ca baña jaarat ci lo wax nga ci baña jaarat lolu doy na war xam nga pap way ci misaalu xasaayit dafa am bëhru rajas am bëhru bashib am bëhru tawi metet bu ci nek fa sëriñ bi tollon di dikaci day di gatch wayin pap lolu nan nga koy xel damaa mës a gëm ni. Mhm. wax ji Serigne Saliou waxoon jox leen ma ndaw ñu ma def ci ñoom la Serigne Touba daa def ca mag ña. waaw damaa mës a gëm damaa bokk ci ndaw ñooñu. <laughs> ah. ndeysaan bokkuma bokkuma ca bokk ca ndaw ñooñu. loolu sama ngëm-ngëmu bopp la te yëg-yëg. <laughs> waaw damaa bokk ci les cinq premiers yi Serigne Saliou defar. ci Serigne Saliou moo defal ñëpp. ndeysaan ay naa ne bokk naa ci tëb bu njëkk ba. jërëjëf Pape waaye Pape. faaw rek ñu gën a xuusaat ci wax ji ndax pap li nga wax man dama yéem ndax saa bu bëggee bind bind te loo bind tey du bokk ak li nga bindoon démb da ci gis ñoo xamante ni woye bu ci nekk la woon ci fële di nga ko gisaat ci fii te pap mbub dama dégg nga wax lu doy waar te it du waxe gone te mu mat a mu mat a bàyyi xel ci say woy nga ne aw yenu Budi sih, Pablo lu mana déggin googu foog expliqué. wooy woow maa ngi sukkandiku ci béy ba sëñ Fall waxoon rek. Serigne Touba dañ nan ko dikk. dañ naan ko nangatu. dañ naan ko katiw dañ naan ko taraw liis. wér na de wooy wi taraw sax laa ko tudd. macha allah ñun Serigne Touba nag dañ ñu ko taraw ma dañ ma ndax suñu toog kenn mënu ko xam déedéet yàlla sax xam nga ni suñu borom la moom sàkk mooy mooy mooy mooy mooy suñu borom. wér xam nga ni moom mooy mooy borom kun fayakun mooy borom jàll jël mooy lépp. wallaahi mm-hmm. xam nga ni mooy ngën gi mu def. wallaahi ay suñu tubaab nag xamoo lu mu naan. déedéet déedéet. moo tax mu naqaree xam. Mm-hmm. moo tax mu sukkandiku ci loolu nii. Euh, xam ca moom damay gënal xam la ëpp ca moom. ndeysaan man li ma ci xam bu yokkoo mbaa du ma soli sagar di wéy. mat na ko de. ndax ndax li ma jot a xam ci moom. muy neex ci sama biir xol mbaa bu yokkoo mbaa du ma li ma xam ci moom bu yokkoo mbaa ma soli sagar di wéy. Mhm. ma xam ca moom damay gën xam la bu ca moom. man li ci xam bu yokkoo mbaa du ma soli si di wér. man li xam bu yokkoo mbaa du ma sa xam xam. ne. ma ne mm-hmm. bu la wonee ca moom te waa waajal lu la defee. xaw nga jëf lu romb bu xel it mucc gaañi la wérul. ma ne ndekete yoo defoo xam lu ñu xamul mm-hmm. Sëriñ Bamba ni mel ku ci ne won la lu jar nga fësal ku yenu lu diis foo mën a jaar soppi saw doxin mm-hmm. aw doxin balaa taaroo faw mu doon lu naturel ci yow ndeysaan aw doxin mm-hmm. ku mu dimbali ba xamal la ci yamam ñi doo ko wuteetee ndeysaan ko soreetee mbàkke bàll moo gën a neex lem lem ay ku ko xas ñoom ñoom mm-hmm. xam ni ki lee daal lépp kenn du ko wéetal leneen moo gën a neex lem bilaay ay ku ko xas ñoom xam ni ki lee daal lépp kenn du ko wéetal leneen lii du tey démb la mooy li koy wégal mm-hmm. yàgg naa fasal daal ak bëggub sang waaw ak wax si mbéjoo mm-hmm. lii du tey démb mooy li koy bégal mhm. yàgg naa fësal daal ak bëggub sangam waaw waaw yàgg naa fësal daal ak bëggub sangam kenn du ne dinaa xaar ba mu def mu soog ñëw mhm. lu fi def defoon na ko ca ba muy bégee waaw sëñ bi lu mas a def na ko ci kanam sëñ bi mhm. lu fi def defoon na ko ca ba muy bégee waaw ma am liko ijo yong buyong yomb yomb nag kenn du gis romb yaa dem ko seesu ko waaw waaw garab salaan ni mi ni gaaw génn jooy jooy tànk laalu ko boo ko laalu du jooy am salaan li koy joo yomb yomb yomb dem joo seesu ko fekk uhuh. na dégg naa ci mag mu naan yuuxul ma wóorul nag uhuh. yuuxul sa bopp gën a wóor ndax du laaj dimbal waaw waaw su ma nee la tey sama sàmba uhuh. yuuxul ma fële wóol ma ni ko ma ko waaw sa da nga bëgg bëri ngay def wala moo tax ma dégg naa ci mag mu naan yuuxul ma wóor yuuxul sa bopp gën a ndax du laaj ndimbal déedéet ma ne nikk nag nikk nag ka tunkatiw nii la yàgg mel ci sëriñ saaliw taraw li desul <laughs> taraw li taraw li so oh. taraw li ci oh. <laughs> pap dafa doy li dafa neex ba egg ci loolu dama nan serigne bi li ngay japp ba yaakaar ni neex na ci bir neex ba ngay mos ni neex na serigne Tuubaa ko gëna neex loolu dafa neex waye nga wax ci lu am solo sëriñ Pape te muy serigne sëriñ no way kat bu ko way sax ci yi ne xasida yi ko ci ñam lo meuna ñam ba ci lem di nga na ndax cafkaan gi dàq na lem waye li nga wax dafa dàq lem waye serigne Pape ndaysan suñu jambar di serigne bejo bis ba nga xamanteni magal màggal musaan nga seen ko ci baas bi nga seen ko ci bernde yi màggal gi pap ndika magal te seenul sangam bi gisul sangam bi pap bu magal gogu nan la demee fi yow magal lo go xamanteni magal màggal lañ magal ni musta magal mo ko rek dana jaxal ni bare bare mhm. ndax ñun dem di ay cantàkko ndeysaan sëñ bi mo do ci yar mhm. sëñ bi ñu defal defaral ko nii mu ko def. ndeysaan. Mm. def sa kër mm-hmm. ñoo am neneen lu ñuy doxee. déedéet te mbir ñoo ne ginnaaw ci saay rek daa jot nag ñu tari. Mm-hmm. ndax daf ñu koy yar la xamal nañu ni daal kaañ bi mooy cant bi. Mm-hmm. màggal ga ba nu ñëwee diis na ci ñun. ndax ku ne xam nañu sëñ Béthio ak na mu mel. na mu yànjee sëñ béytu na mu na mu na mu na mu muy dundee yàlla na muy dundee mbégte mi boo ko gisul loolu boo ko xalaatee mën na nag waaye boo nee dees jàkkaarloog taawam bi di Serigne xol day da ngay du ah xul doon ayaat yi axjala si tayam ju ne day gàccal dem Serigne Touba wala sëñ béytu lu gaar Serigne Touba daana ko gaar ndax mhm. ndax ndax di daraam génnut Serigne Touba nag mhm. léppam day Serigne Touba donc na ay nit lañ. wax mhm. sama xarit sax boo nekkee moom bu laaxoo moom am moo moo bu voyagé sax mu métti moom nga nga gelu ko. rawatina sëñ Béthio. am nañ ci daal xawoon ci am tuuti gis mais nag mbégte lañ ci jël ndax xam sëñ Saliou Thioune. Mhm. mu doon xool tuuti ñu xam ne nag ñoo xam ne sëñ Béthio nag kii waajal na ko. ndeysaan vraiment ci lañ màggal ñun musta màggale nag. ndeysaan tey jërëjëf Serigne di ñaanal taam bi taaw yéen bi te dara manqué wu. koy ñaanal sa yàlla defal ko tawfeex na noonu ñu siyaare jëwriñ ñu teddam ji jëwriñ moo jëm malaaka universel ci ko ñaanu sa borom yàlla defal ko tawfeex di siyaare mboolem seen werekaan yépp Serigne Pape Mboup ànd lan ngay bégalaatee soppe yi Mbakke balla loo ma dese wel bilaay loo ma dese lu ma nga mu dem di mu ñëw maay saxati sant sëriñ saawaay sama sang ba man loo ma dese lu ma nga mu dem di mu ñëw maay saxati sant sëriñ sama sang ba man sëriñ sa Aliou loolu desee lu ma ragaloon nga taxaw dem mosoo lay it nga ñëw di mu ñëw maay sax sant ci yow yu ma yaaru ma naa waaru góor ci yow yu ma yaaru ma tëddam naa waaru góor ci yow yu ma yaaru ma tëddam na nu suur naa santu ko war naa sama sang Bamba loo ma dese ma di lu ma ragal nga naka mu dem lu ma solo it nga di mu ñëw ma saxal ci sa dese bilaay bi nga nu ñor daa bisi nag gëstu mun yaa ko waral gëstu mun yaa ki ko mën a ki ko jëm yee yamuñu nag Saaliw def na la daanaa loolu ma dese sama sang ba man loo ma dese loolu ma dese man bi lay loo ma dese lu ma ragaloon nga dàq mu def lu ma solo it nga ñëw di mu ñëw ma sax di sant yan wadalatina fa mu daa màggal lu dëgg la géwél ji na dina kamu daa ji ne wayal Sëriñ Saaliw moo ma ne weex ma di ko def Sëriñ Saaliw Cheikh Massamba way Sëriñ Saaliw moo nu ne weex nu di ko def Sëriñ Saaliw moo ma ne ma di ko way farata la ci man ngir way kat yowoon Cheikh Moussa Ka Cheikh May Jaxate ñëwoon la wan ci ñoom la Saaliw def tey ci man mbaalu ko raw way Sëriñ Saaliw moo ma ne fàllu ko waa xoxol leen ko góof maa ngi nii saali way bu juu mooy oo lamb njël na doon dugg na nag semmeñ am ko daawaa gën a wóor way sëriñ saali woo wax doo leen way sëriñ saali woo moo ma neex ma di ko def way sëriñ saali woo moo ma neex ma di ko def ndeysaan way sëriñ saali moo ma neex nu di ko def ba tey Serigne Pape Mboup suñuy tele bii di Kifne TV Kifne TV maanaam ki fi ne di di Mouhamadou ah, <laughs> ya rasulullah di ñaan saa borom yàlla noo ngi sàkk mbokk yi ñu dem abonné suñu pass bii di Kifne TV lépp loo xamante ni yàlla ak yonent bi kese mbaaxum Serigne Touba dañuy génn ci télé bi yàlla yonent bi lu dul loolu fas yéene wuñ koo génne ci télé bi yalla kep yoonte bi kep te yalla ak yoonte bi génn seigne touba seigne pap nga dekkat ci lu am solo mbacke bala lo ma essal pap mbu dañuy dugg ci sa wax ba nga dalé way seigne sañu batay ana lum la defal ba tax nga nan mbacke bala lum la dessal seigne sañu mm-hmm. mbégte pe intérieure bi ma defal ndeysaan tax na mm-hmm. baa xam nga ni fi mu nekk nii bëggatuma dara ci mu jafe mm-hmm. amul lu muy bëgg rek te dox taxat sama tànk jóge te sëñ Saliou defal ma ko ci ba ma wóoree daal sama xol bi moom rek ci nekk mm-hmm. ba lu jafe dama ko mm-hmm. te laa xamee ni kii desiratuma dara ndax defal na ma njëkkuma mee dàquma fee way dëgg la ëpp ma fi xam-xam. waaye fexe ci ci liggéeyam fexe na ba daal bu ne way ah. fexe na ba fexe ba ca lim ndax ndax fexe na daal ba Pape Bougal. Mm-hmm. moom bokk na ci lim bi. te lim bi nag c'est pas évident bokk ci yombul déedéet. ngay am doomi aadama yoo xamante ci sama anniversaire bi passé laa ko xam. ndeysaan bërki dépp. adina ñoo ma defal jaisan tu tu tu bir te mbir la moo ni li tax kàddu gi ma ne woon damay bàyyi ba ñëw fii soog ko wax bëgg naa ku yor sa téléphone nga filmé ndeysaan jàpp si bëgg naa ko yor téléphone lii may wax nga filmé ko caméra yi gi jàkkaarloog man ndeysaan ndax lii may wax lu ma ñor la. ndeysaan. am noonu damay defal vidéo sax. Mhm. waaye bi ma xalaatee ndeen bi ñëw ma ne naa bàyyi ba ngeen ñëw rek ñu jàllale ko. ñu jàll benn yoon wallaay ndeysaan. sama téléphone ñi ma xam ñëpp. Mhm. ak ku ma xamul. Mhm. ñëpp mu yónnee vidéo. ndeysaan te ku ci ne vidéo ba ma defal. vidéo boo toog mu neex la da bëgg a bokk ci group bi rek. bokk ci ñi defal PAM bu rek defal. xam naa. dëgg la boo bàyyi ko doy ma sëkk waaye ku ci ne ba may defal vidéo damaa gis da nga jël sa temps ndeysaan defaru man xam naa li ci defar vidéo ndax chaque jour ma defal plus de cinquante vidéo wallaay ci ñu ma xamul ma souhaité joyeux anniversaire allah la dàq nag souhaité ga ñi ma xamul ñoo fukki junni yoon ñi nga xam man j'ai plus de contacts ci sama téléphone mais mhm. ñëpp defar vidéo ma ñeneen ñi ma xamul sama téléphone bi planqué na junni yoon ci waaye la neex ci kàddu ya mm-hmm. mooy nit ñi séeree luñ ma rek ndekete àddina jàppe wuñ ma ay woy rek déedéet non non non non mm-hmm. buñ ma jàppe ay woy rek rek rek rek rek rek mm-hmm. kon du ma lu ma neex déedéet nous sommes des citoyens vivre en société dañuy dund ci société société boo xam ne ñu nag suñuy suñuy suñuy mbokk ci nekk ñun ak suñu doomi aadam mbokki talibé ci nekk ñun ak suñu mbokki julit ñoo ci nekk suñu mbokki chrétien di nekk ñun ak suñu ñeneen ak ñeneen ñoo ci nekk mm-hmm. kenn ku ci nekk lan ma seedel mm-hmm. dëgg dikkul ci man man xam saw boobu ndeysaan waaye dem naa wax ni la ndeke nit ñi jàppe lu may woy rek ndeysaan ku ci new angle boo xamante ni jàpp nga ni pam bu cig nga ko moom loolu mm-hmm. libre nañ ci wax ko mu neex ma lool barke Serigne Saliou Mbacke ndax lanu ma seedel ma seedel daaw Sorano laa ko defoon ren ren ren basse mètre yóbbu ma ko Grand ah. mais fii laa sama soppe fu ne nit indil na ma ay cadeau. allah waaye cadeau gi benn la. buñ banyak pun waykat kata woy fonction la tey da koy man suba doo ko man comme caméraman bi ni mu yore caméra bi di liggéey waaye ñu bari bari ba ñu seede ci jikko ji lañ seede masha allah ata ko ñu seede ci jikko ah day mel ni yat wa daloon si naa alayhi salatu wasalaam wallahi yàlla da lay daal di dal taku ku yat waaw gi moom yat wa ko dal bu la dalee saa nga xam ne tuyee suñu plationné jant gi gën a rëy nag la ci man donc tarbiya ne yenn xel ko wàccel may kaamil ci yónnee ma vidéo yi kon kon addina bu ma suy bu ma ko suyatee. ndeysaan danaa ko biral ba addina si tax te defuma dara. Mm. dama dama dama dama ñëw dama koy simple la rek noonu. ndeysaan samedi laa ñëw fii. waaw waaye vidéo yi daal jógee na fu nekk te ku ci nekk daal xam naa ne jàppewul ma ay way rek. ndeysaan. mbaa xam nga ni man ñi may communiquer lu WhatsApp ñi ma xamul ñoo ko ma xam. wér na man ku ma yónnee message léegi balaa message bee kii man dool ma delloo la ko. donc damay waxandoo dugg fii wax ak kii génn wax ak kii génn fi tontu kii wax ak kii ndeysaan dinaa fexe ba kenn sa ujoon du yàgg ci man ndax la waaw doomu yàlla ne wal xad karam naa bani aadama doomu aadama yi ñoo gën ñëpp fay star amu fi benn star fi am mooy sëriñ bi waaw góor gaa yi buñ la bëggee sëriñ bi rek lañu bëgg delloo leen ko bëgguñu kenn ndeysaan sëriñ bi la lañu bëgg ko sëriñ bi di bëri nag ba ba ngir bëgg sëriñ bi rogalaat ba ñëpp ba ba xaw laa laal ngay jaay cher seer seeru màggitaan yaag caat wallaay ma matam waaw góor ñii ma nekkal xam nañ ko damay xëy show bu ngoon jot defar vidéo ndeysaan ku soxla ci man vidéo danaa la ko defar sans condition ndokk jërëjëf Pape Mboup loola nga wax gaa ñi may nekkal am nañ ci firnde gu leer ngir nit amul lu dul kim sopp da am soxla soxla sa sa soppe la sopp ñu loon gi Sëñ Tuubaa mun ta fekk fu ñuy jànge muy siini géy te Kër Masaar ndeysaan moom bokk na sax li tax ma ma ma ma lay suivre ndax soppe dina dina soppaloo nit. Pape Mboup soppe dina la yóbbu foo xamante ni yow sax xalaatoon àgg fa waaye siini moomu dafa yàgg di bala gëmloo naan ma yàgg Pape Mboup faw ma am bis booy leen ci jotaay ne ma dama seetlu ci yéen ñaar saa bu ko envoyé message bu koy lii di ma tontu. yow it kasaaka saa mën a envoyé message boo koy lii di ma tontu nii la ko waxee Sini Gueye di ko ñaanal sa borom yàlla defal ko tawfeex ndax kenn ci ci ci ci teel lañ toog mënuñoo sosal ko xam ne moo ngi dund waaye di ko ñaanal sa borom yàlla defal ko tawfeex Pape Mboup nga wax lu am solo li ñu sonnal ñun mooy succès Pape Mboup ki la sopp loo génnee mu daw uti ko say vidéo bu téléphone doon fees sax mën na sécuriser ñëpp ba mu des yow. Pape Mbow kooku ànd lan nga koy soññee li nga wax léegi ci anniversaire bi lii lii nañ say essai gis nañ ñi nga xayte ni defal nañ la vidéo te kenn ku ci nekk du ko ndaw ni nga ko waxee doo ci seen koo xayte ni ak coomo la mel ni ne Massamba déedéet koo ci seen rek day xam ni kii mën naa fanaane programme waaye teewul la nga wax ci yonent bi alayhi salaam li ñu ko taggee mooy jikko ju rafet Pape Mbow ñooñu dangaa wax rek waaye ana lan nga leen sante ndax dangaa wax liñ vidéo yi ñuy def waaye taxul nga egg ci cant ga cant gi ma leen di cant mooy mhm. cofeel gin mag gin am ci man mhm. lu ma mën ci delloo leen ko danaa ko def alhamdulilah ndax mhm. bëgg yëg rek koy fay wallahi te bëgg te yëgu boo amee fu la nëbb ko sa cofeel. ndeysaan wallaahi. donc je man gëmuma loolu. Mm-hmm. li ma gëm mooy yaa ngi def loo xamante ne sëriñ bi ngay way mm-hmm. nit ñi sëriñ bi lañu bëgg wala wax ci sëriñ bi ñu bëggee ko. wallaahi ah, ñu bëgg sëriñ bu ba ñëw ci yoon. Mm-hmm. boo goree. delloo leen parce que am na leen wax ñàkk xam-xam la rek. ñun buñu contradictoire <laughs> moom lañu la ñuy doxal. man de ku ma tontul message maa boobu ma jël ma la xamal ni nga man la leer doo am ci man arrière mhm. ndax damay gëm ni man. des fois ma tontoo message boo xamante sax fii du bërëb mhm. ko dajale. waaw ndax bu ma ko dajalee bëggu di. Mm-hmm. dama ko war a tontu bi day bëri day bari ndax man suma suma téléphone bi bu ma ko fayee fi nekk li ñuy def émission bi bu ko taalee ni daa ci fekk plus de cent messages yoo xamante ni day ñëw la sa bopp mm-hmm. woo leen ci nit ñi kat damaa bëgg sëriñ bi mm-hmm. gi nga bëgg a daw loolu boo ko defee amul xam <laughs> boo ko defee amul xam-xam <laughs> li may waxee waat muy vidéo d'anniversaire muy lu mën a doon soxla su nit am ci man muy pap bu man mu xeebu mi du la hésité. Mm-hmm. ah loolu yàgg naa koo def ndax dama ne woon loolu sama diggante ak sëriñ bi la. ndeysaan maa signé contrat boo xam ne ak sëriñ saa yu kenn du bëgg ci man ci sëriñ bi dara te ma man ko di la ko xaj. ndeysaan ay na jot na ma fësal ko ndax doxee naa ko ba nit ñi. Euh, delo ma bor bo xamee ne ëpp na law leen lawal war na dama leen a bëgg a devancé nag ba tax dal bu ci am sa xarit ba xaritam xaritam xaritatam bu am anniversaire ba luma soxla ci ma dara bul xaar wallahi ndey wo ma téléphone ba nga message ba ma defaral la vidéo sa condition ma sha allah nan gëna a jàppante eh. nan gën bëggante nan gëna a fonkante eh. ndeysaan waa ci ba nga ñaan dal hmm. soppé yi hmm. kenn amul seen fay wallahi bab soppé yi hmm. kenn amul seen fay da am lu nit ñi di wax des fois Euh, nit ku siw day faral def nan duma lire message bu ma xamut duma jël téléphone ku may ku ku ku ma xamul waa mais man nak mani man man man man kon bokkuma fofu ndax dama dem ba xam ni ñun ñi ñu bëgg te xamuñu leen ñoo fukk ci ñoo ñun ñi ñu xam des fois nit dina la xam lu yagg ta do am sa numéro bëgg la dégg bëgg la gis ta do xam fu muy jaar yàlla dogal ñu jox ko sa numéro day indi tax dina la am na ma message message ni ma papu mhm. way damay ñaan sama message boko ko boko li ko liiree nga dimbale ma tontu ko malah bukan yang sama masyari sa mayroong nah, tao islam mani ko mani kuno di yaw sax dana ko tontrawa tele wallahi wallahi yaw du ma yam ci tontu la dama lay woyal ci sa bi jauh sama tontu ci mau moy lah. Mhm. mau ma woyal ko serigne gëmut ni man ya, ya, ya. mau mo mau mo xew mi man tam bu gis ma la yob gis ñep waye pa ba mo kon lolu lu fi jaar lu ko fi jaar dara gisu moko dara soppé dal amuñu sét fay yeen yeen ay jadi jërëjëf bab soppé ñay stade ndax burul soppé do dem soppe yi ñoo lay teral soppe yi ngay ngay génn album ñu fàggu ko soppe yi ngay woote ñu wuyu si la kon ngela ni ñu ko waxee star amul kenn mooy star mooy sunu jàmbaar ji moom moom kott mooy star gaañi ku ñu woon nañ jël ngi jëmmi Sëñ Tuubaa pamb daa am phénomène boo xam dafa xew mooy comme ni nga ko waxee du ma wuyu téléphone ku ma xamul mbir boo ko yemale ci ñi ñi la xam kese kese kañ ngay poussé ak tardement la mbir boo ko yemale ci ñi la xam kese kañ ngay poussé mais ki la xamul kay moo la jënd sa numéro boobu wala kañ ngay kañ kañ ngay poussé maître jamono yu yëgul ci xasaay ne ci kuréel di jiite kuréel dama naan fekk nit jógewul ci àll ba ñëw yëgal ñu pour ñu ñëw jàngi damaa yaakaar ñu doxaguñ waaye ñii gox goxaat bi rek nangam waaye fekk nit jégul ci àll ba yëgal ñu ne ñu dañoo am programme ñu war faa jàngi nañ yëg ni doxagul te pas-pas boobu ba tey la ñu am. waaye PAM bu ba tey dangaa woyoon Serigne Saliou lu am solo loo xayte ni bokk na ci li nga xayte ni àdduna sépp nu ngi koy diglu te am na ñoo xam ne xamuñu ba tey PAM mu muy sant ko fële PAM loolu loñ ci indi. waaw wooy la woo xamante ni rek. mën mhm. naa ne koo gis ku ne da ngay am sa sa identité. te moo ne. ci li ma gëm mooy dàqul ci samay way. ndeysaan loolu nag man la waaw. waaye Serigne Bay def ay dogalam. mu jël woo xamante ni du koy def ci xol yi te doo ci man dara. dëgg la nit ku ma woo téléphone sax. wala nga woo ma sa xew sax da ngay bëgg ma njëkk a waaw te. waaye ni jéem naa ko xewil ba sonn. ba xam ne def naa pexe yu ne ngir mu xewi. <laughs> pexe yu ne. Mhm. ngir rek woy woowu. ndeysaan ndax dama xam ne am na yu ko dàq yu gën a riche te man yor naa leen. ndeysaan la woo xam ne daal xol yi moom. Mhm. waaw tënna ci xol yi mënuma saa chaque jour ma gis ci challenge yu bees yoo xamante ni dama daan waaye woy wi man boo ma ko yëg léegi man ñaari at. mais <laughs> woy woy la woo xamante ni daal man jaaxal na ma loolu ndax. ndax ndax sëriñ bi daa la ko def ci xolu jaam ñi waaw mooy sama identité des fois ma dem ci ndikkër sax wala ma dem ci bërëb nit ñi xamul ni ñëw naa waaye bu ma nee sant ko fegal ba depuis na ba fi kuy taal dara si gis daal sama nar ba ki dem sant bi passé damay way di way di way di way di way ay kilifa fa nekkoon mais bi ma jëlee sant ko fegal ba depuis na ba maire dañoo tax seen làkk kilifa yi fees dëll ca kër ga di di siyaare Jules Souleymane Niang ak Soxna Fatou Kiné seen tout tànk ne woon ca. macha allah ah wala woo xamante ni daal. Mhm. boo ko def ci xolu jaam. cey manuma ci daal. ndeysaan wax la nag ndax dama ne sant bu fegal ba dëpp na ba fi kuy tànn ba rusi ndawal fooy añee. Mhm. ñoom te gënu ku jëfe li rawatina toog di xaaru ak koy fooy. Mhm. ne ki ñaak suurul. bu ñeentee du ko tax a rekk. ne goreel waaye todoy loolu. teg mhm. ci ni ku gorewul du fësal bay da koy xubtoo ni eewaay eh, goreel waay todoy na sàkku win mbir dana xañe mhm. aw amee diir ko jàpp ko fa mu feeñe mhm. Serigne Saliou fii la feeñe wallaay ba mu ñëwee la ni damay yeesal yoon wees la woon wees na wallaay aw ñam balaa saxe fekk fa aw xiifu tar xiifal naaman jamono bu dee dox dangay dox jéem ànd ak moom nekkat à jour taataan nawet la gën awna kuy fot di wer ngeen am ndam mhm. serigne saliw mo ayé mhm. kuy xaar mo fegal nga añ dooto suur mhm. man ki ma don set ba ma ko gisee laa noppalu ma bëggatuma amatuma xamatuma namatuma fenen fa dul fi waaw ah, way woowu daal noonu da da da da ta ta bizarrement do wayu gudd ma ne ko bizarrement du wayu gudd way la wu gàtt xamé xam na ko ci ay bayit waaye bayitee ya daal mel na bi moo ko risalal bato def ko ci xolu jaam ñi mënuma ci dara Mbacké sanduku fegal ba dëppi na bamba fi kuy tal bërosi na bu ko reewul wul du fasal may da koy xum doo Cheikh Massamba yow waa aw amiin ir ko jam ko fa mu feeñee fa fii la feeñee fii la feeñee ko ca kaw fii la feeñee fii la feeñee ba mu ñëwee nag ina may yeesal wees la woon wees la woon wees na waaw aw ñam balaa sa fekk fekk fa aw xew tarxifal naa ma dox jéem ànd ak moom nekkal à jour nekkal à jour taataan nawet la gën aw naaj bi fënd ngir am ndam ngir am ndam Serigne Saliou moo aye kuy xaar mu fegal nga añ dootoo soor dootoo wax leen dafa ne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 Sungkawan nama Sungkawan nama Taisan Pambu Woi mablenan lah <laughs> Bagi Serigne Touba maanaam dafa dafa dapat doy waar maanaam da nga cee indi loo xayante ni woyu jinne moo dul sant wallahi ndey loolu cuune ah nga ñëw sing sëñ ndeysaan Souleymane Diop Nabi wallahi ndeysaan sama rak joj nga xamanteni hmm dina ko no mëna def da ngay graw ndax ndeysaan da nga da nga da nga da nga nungo topé hmm tarbiyu ndeysaan xam li nga bëgg waxum kenn bu bu gone mhm. Nabi ndeysaan sama rak joju donc man waaw nga ñew ci ñom ma ndeysaan El Hadj Cheikh Diop Baye. jàngatu xasaay yooyu fa ndeysaan Moustapha Seck. Mhm. sàb bu sàb. ndeysaan waaw waaw waay waay Cheikh Massamba yow mën na wax jàngkat bi la fi romb. yow tey position bi nga toogee. ndeysaan rek waaye xam na ni yow man déglu naa dégloo di la. ndeysaan da nga baax yow ku sëriñ bi dimbali nga. fi <laughs> ngay wayee yóbbul kenn di fa wayee. ndeysaan papa gi bi daal di jaaji xaalis jaaj. cey gaa yi ñëppay di daanaan koo ci déglu. fii daal lenn fem xanaa ku ñu waaw Moussa Kalla Moulay. ndeysaan jaxaay jàmbaar day day day day gone kenn ndeysaan day day sunu kilifa kilifa wallaay waaye nag mhm. am xam nga nii fi réew mi toll nii mhm. ak ne Cheikh Mouhamed nag la ñuy déglu waaw <laughs> kon képp la ci dara daa xew Mouhamed dana xew yi <laughs> émission bi nag li tax ma di ko di ko ci baamtu man. waaw ma ci woy yombul. ndeysaan te ku ci ne koo woyu sentimental ba bëgg ko. wallaay ndeysaan. ñëpp lay bëggee ba ci musiciens yi sax dama leen di bëggee ndax dañuy woy loo xamante ni day xam ne lii ko woyee sëriñ bi ma tukkal réew lu neex lu ne rek mm-hmm. lépp lu neex suñ borom dañ ko war a woy waaw ak foo mën a nekk rek mm-hmm. waaye Mouhamed mm-hmm. daam xam ne ak man daam bu muy yem waaye daam jagleel sëriñ jagleel la <laughs> jagleel la nag jagleel la tey di day da am ndimbalul sëriñ bi man pam boobu nag bu caaxaan jeexee ba dëgg des ndeysaan euh, xeebu wàll yi waa sëriñ waaw xam naa xam naa ban position daal laa boo laa doon ci mbir waaye man Mouhamed damay daaneel nag. day daaneel yu bëri. waaye daf may daaneel yàlla ndax damaa xam yéen a yitte ji may jox way damay gis daal Mouhamed wayam. Mm-hmm. da koy jox yitte Mouhamed non seulement mélodie ba dana garaaw waaye contenu ba. Mm-hmm. waaw boo dégloo wax ja. Mm-hmm. ah da xam ni kii. kii. te man nag dama de da li ma dimbali. man dama dama taataanee ci ci ci ci ronam. ci keppaaram man fa laa jébbee. ndeysaan day sama mag ñoo xamante ni yaayam ak sama yaay. bokk papa. ndeysaan ma sax di ko fësal di fës waaye la au-delà de xamante ni ku bëgg a mën a way. da nga fexe kotuwaay ko. am loo jël ci moom. da nga cee am lu la. waaw maa loolu. moo sañoon sax émission bi loolu ngeen koy tiitre. waaw Mouhamed Pape Boub nee na. waaw Mouhamed ñoom ku jël ci moom. Mhm. ku jël ci moom. Mhm. foo wooyee ñu déglu la. <laughs> waaw ku déglu ci moom. waaw foo ku ko ku ko nii. waaw góor ba am loo jël ci moom. ndeysaan. ci foo wooyee àddina sëpp déglu la moom mas ngaa dégg fu mas ngaa toog. jotaay bu ne mo ñu teg Mouhamed ñu mën nga dégg ku ne Mouhamed ñu mënul way. mais mukk amul ci dégg déggee ma ko de. man de mosuma ko gis man ñi même même même ñi xam dara ci way sax boo leen waxee euh, euh, a way. dox ba déglu ku ne Mouhamed ñu mënul way. yombul de waaw kon. Mm-hmm. man daal du ma fekk du ma fekk jël ndaare nag <laughs> ma di ko ma di ko ma di ko ma di ko dimb wala ma di ko kotoone ma day fekk ne ci kanam nag mm-hmm. ma jéem a dem riis ku mel ni moom waaw waaw ah ñaan Serigne Touba rek <laughs> waaw moom nam doxal rek ndeysaan waaw ah, man daal leer na ma ni jël ah, ma ni man jëluma sax ci moom lu ndaw man damaa ca moom ndeysaan mais ci moom damaa góor ci Mouhamed Niang ba ci moom mm-hmm. Mm-hmm. waaye jël ci moom ba ba ba ba mu bëri doole. ndeysaan ba mu doy sëkk ci man. moom moo nekk loo xamante ni nag. waaw say mbir bopp la say mbir bopp la say bëggoon feggu la. ah loolu nag loolu nag loolu nag bu ñu doxalee tuuti album bi may waajal. waaw tuddee la solution. ceeb waaw douze titres laa ko tuddee. la la laa wooye Serigne la solution. la solution. ci foofu nag ngeen xamee ni ba may jël naa ci moom boole sama yëfu bopp nag. Hmm, mbaa loolu di di di suñu télé bi ko. waaw ndax. Mm-hmm. doo ci dégg loo doo ci dégg. Mm-hmm. loo mës a dégg fenn. ci. waaw ci mm-hmm. a waxee. ci way naa ci séeréer. Oh. <laughs> mélodie bu ne. Oh. loolu de kéem daan dëgg la waaw. koy mhm. naa ci sëriñ bi loo xamante ne bëgguma sax dévoilé sëriñ Tuubaa la solution la album bi tudd. macha allah am ngeen ne daal dina xam ne. Mhm. rakki Mohamed Niang jii daal <laughs> ko sax nit lu mu xamadi xamadi xamadi xam ni Pape mi daa mën a way nit lu mu xamadi xamadi xamadi xam ni Pape Mboup la waaye lu mu xamadi xamadi it xam ni kii ku ñàkk ñaan la ndax lii mu fi wax. tey si tey werekaan yépp nan nu may nopp te may xel insha allahu taala képp kuy werekaan façon la fekk fa nga ne insha allahu taala ndax émission bi werekaan yee ko tax a jóg werekaan yi lu xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kenn ku ci nekk li la suñu borom dox doy na la sëkk sakkaa ciru jàmbur te Pape mu doxee tey si tey ci émission bii ci magam ju tedd ji muy Mouhamed Niang ku mën a waay la démb si guddi rek pap sama soxna <coughs> soxna jaara bu sa maa ngi koy siyaare ndeyu mbër def naan ba ci ni nga ko waxee rek ne neexul ba neexul neexul ba neexul barki Serigne Saliou Mouhamed Niang ku mën a waay sama soxna dafa doy waar xam nga lu la waaye di jaay moom nga may say gaay dédduwaanulaahi la la say doon nga dooree déggal wax jooju man ñaa wax de maanaam way wu riis comme ni ko woyee sànq ci sant ci sant fégal waaye ñoo ngi koy ñaan saa borom yàlla defal ko taw damaa dégg mu Aduna bihi sorinala sorinala sorinala Nala mihi Nala ya jaganala jaganala Awal tagau muka tundula Yeruma ya dem jibarina Loolu dafa yéeme ma ne wax <laughs> na ci way woowu bayit yo xamanteni ci dal la bu ne keur ak auto ak i madam mhm. ku mu galan nga dekké nelaw wallahi sa mujj faw mu am kon foofa yu gone de déedéet dalul gone du sëriñ bi dimbale la moom daal émission bi moom daal nañ jàpp ni cërëma cërëma Mohamed man maa ko maa maa maa ko def express xam naa lan waaw da di wax ci sa nawle du la wàññi dara ndeysaan da ko xam pap ndeysaan man nag kenn gondiwuma kudul sama ndax dama xam li ma sëriñ bi defal. Mm-hmm. waaye moom Mouhamed Niang. c' waxal ko lii ko sëriñ bi defal. ndax man mën naa tax ba du ko sëriñ bi du ko yokk. déedéet moom mën na bu ko mën naa tax ba du ko yokk. déedéet waaye wax ko kay tàkkaale ci sax damay gën a kii. wallaahi ndax lu bari nag daa war a a tax ma seereel ko lu baax. Mm-hmm. ndax da koo jëf. Mm-hmm. ma gis ko. déedéet waxuma la sax euh, euh, nawle werekaan bi mais moom sama kilifa la. moom kilifa la ci man. kilifa la ci man. ndeysaan. Mbacke Serigne Saliou Mbacke kilifa la ci man. koy def. Mhm. man mi bokkoon naa ci kër yi principal yi. ñu géré woon ci ku ne na ni Mouhamed Cheikh am du ko bëgg a jubbu ay ci ci coulisse damaa tàllal loxo mhm. ñu na foog xéwal yu bare bare bare. màggal màggal ba ci suba ga cant bi muy def jëndatu wax waa. Mhm. ñëppay way waaye man bala maa moom balaa jël bu joxee moom bi nga xamante moom rek ko war a jël. Mm-hmm. man ca laa jël mu soog a jël. Ah. am na wax damaa nekk samay programme boobu ba yenn heure yi. dama ñëw fekk ko mu war a jël waaye dañu bala maa woy sama rakk ci lay woy. incha allah waaw Mohamed ña nag wax dëgg fi neex ko ni. Mm-hmm. moom man ëppalee ëpp ëppalee ku ko dara nag. déedéet du ci way wi. Mm-hmm. du ci du ci du ci du ci contenu du ci dara taf maa ji rek taf ma ci boppam ma ma addina nag ñoo mën a yaxasee mm-hmm. addina ñoo mën a jël mm-hmm. ndaw luy dem mm-hmm. dugal la ci gaam yoo xamante ni matu ko matu ko wallaahi loolu nag dama koy dama ci soññ suñu suma sama nawle yi di ci soññ ñi nekk ci beneen côté ba ñi nekk ci milieu showbiz bi ku kala jiitu ko jox mat na ko ndax am na lu mu xam loo xamul. Mm-hmm. moo la ñemeloo ba nga ñëw. waaw mm-hmm. ah, moo mel ne bu génne album kenn dégluwu ko. Mm-hmm. ñu neexut nit ñi safut nit ñi nit ñi bëgguñu ca dëgg. kon ñun dañ naan kon jox ko cër wàccuwaayam mu war ci moom. moo it mu xam ne ñun ay rakkam lañ. mu boot ñu rogganti ñu. loolu day gën a dëgëral mission bi. Ah, day gën a may ndam suñuy soppe ndax ñun ñëpp bokki soppe damaa dañ maa may benn téléphone téléphone ma ma xool te kooku sama soppe la. di ma di jooy saa su ne ndax man ndeysaan téléphone ba ba ma gis dama caa fekk woy Mouhamed Niang fekk ca woy Dóor fekk fekk fay keneen ak ma man ki ñii ñii kay xamal nañ ñu mu ñii yëpp lañ déglu ñu ko bëgg jàpp ne yow rek ma dul nekk wallaay loolu nag maa ngi si ku mag jox ko respect am solo ñu mag ñi ñu mag ñi ñu ñu nit ay ndaw ñu bëgg ne kaw rek sëriñ bi la sëriñ bi dara def la kanam nga xam yaay kan nga xam fonkaat sa bopp bul ci def ak matadi bul ci def ak doyadi bul ci dem fuñ la wowut. bul ci wax mukk lu kenn naan acam. nanu de di jàmm ñun ka war a ànd. donc koy ngi koy soññi nag sama mbokki wérekaat yëpp. macha ci soññi ne ci côté bi. Mm-hmm. ku ci mel ni kaawu Waly Seck Pape Diouf Sidi Diop ak du genre. Mm-hmm. ndax ñoo bokk milieu bi ñun ñëpp. a ko Sodav boo fa demee boo nee chanteur réalisé dañ naan artiste rek bu ñu fonto. Mm-hmm. artiste artiste amul chanteur réalisé amul chanteur artiste artiste la. wallaay donc. fi mhm. jamono toll. Mhm. suñu papa Youssou Ndour fa la toll. Mhm. papa Thione Seck fa la toll. papa juf mi di naanaan. papa Diouf kenn du ko dàqoo jëreem. waaye wali Seck ni mu mel. ndaw lu ci bëgg ndaw lu ci bëgg saw yoon. ak yàlla rek mooy àggale nak waaye dal wali dal gis na ni. lepp lu ko mën galankor mo moo koy moo koy moo koy teggi. social. -hmm. jàppale ñu mu a jàppale. macha allah bëgg ko bëggutoon sax bëgg ko moom mbaa xam nga ne waale ñi ko bëgg ñëpp daan ko bëggewuñ ko ay way. ñu mm-hmm. bari nag mbaa xam xam ni addinaa toll foo xamante ni faw nuy dimbali nit ñi. ndeysaan nit boo ko dimbalee boo boo doon boo doon yuuxu sax da koy bëgg. parce que day mujj doon cofet ci moom. ndeysaan loolu nag maa ngi ciy soññu Sidi. Mm-hmm. Mm-hmm. xam naa ko. Matar jom Soubatel mi ko yor sama frère la c'est ça jambar bu sa best production sama seigne fallo bi ak ak ak looma desel di si joom laa ko enregistré ça way way ñoo ñu bax lañ ci way nan xamni ni hmm ni mu mel yàlla ko def c'est ça te si di bu gëné liggéey ci kanam hmm yalla àddina day dox ta ndaw ab taw moom bu mujj rek mooy ëpp doole. waaw man na loolu dem ba sii di devancer ko ci kaw mais nag. ab loo gisoon da am yoon da am néggandiku xaar la. Mhm. bu la kenn dugal ci ay détails ku mën a doon bu la dugalee ci xuloo mbaam xeex mbaam mhm. subaa bu mënee bu ma buy buy juboo jékki doo ko bu kenn wàlli bañee. Mhm. ki nga war a topp topp ko ki nga war a àndal àndal ak moom. doon benn jàppante. tollootuñ fu ñuy clashé tolloo surtout ñun xas ñun jàkk xas day waaw waaw ah, ñun duñ kenn dugal ci rivalité déedéet déedéet ah, non non kenn nag mën ngaa dem sa a àndal gëm mm-hmm. kenn dugal ci rivalité sëriñ bi woowuñu foofu de déedéet déedéet am bi woowuñu foofu nanu góorgóorlu soppante jàppante bëggante ngi jëmi sëñ Tuubaa rawatina ñun ci jotaay bi ñu nekk muy ëllu xasaayeet nanu jàppante bëggante di woy bi rek tambali sëriñ bi yem ci sëriñ bi am solo ñaanu nak pap bu ci jotay wéré kan mi ñaan sa borom yalla defal ñu tawfiq yagal fi Cheikh Modou muntaka bashiru ba mu fassene ligue liggéey suñ sun borom yalla kàttanal ko ba mu yegal ci sagom ko xol jamono ji ni muy yakko ken amatul jam ñepp tit nañ ken xamatul fuñ jëm waye nak nañ jappé ni lepu ay dogal la te dogal bu tabé ci jam jam da ko war a nangu nañ nangu dogal yi yalla bis dana jot bu tegg yépp ndax la sëñ bay jaxate waxon borom tuba sëriñ bi ab sam bu setané juri jur yépp danañ dé kon nak ñogi ñaan sëriñ bi wa naan lepp dagan nañ la nga teggil ñu tawat yi mën nga ko lu tuti fu yow la barke borom tuba pambu ñi téwlu suñu émission bi wéré kañi ñaan sa borom yalla defal la tawfiq ñaan fépp fu ñuy dégg werekaan ñu doole la fa dégg ci dara ji serigne salih pap mbub ñun suñu pas-pasu bop la ñuy waxee barki cheikh khadim ku bax nga ku tabe nga ndax nun dara gondi wuñu lul serigne bi serigne bi kese ñu gondi sank ci suba rek am ku bax ko xam ne ci programme mu dëkk buun ne ma sama rak bi nga dalal kon da nga xam ki ne ma ku ñak ñaan nga kon lolu pap do ngi ñaan sa borom yalla defal la tawfiq suñu xol sedd na ci yow ndax li yombul pap fu mu tollu ñu soxla nga bayyi ay ité ngir suñu jëm ji ngir and ak télé bi di Kifne TV dongi ngi ñaan sa borom yalla defal la tawfiq defal la di ñaanal mboolem seen personnel bi nga xamanteni andon nañu ñu joggé Kër Massar ñew fi ci Pikine mohammed Ousseynou do ngi ñaan saa borom yalla defal leen tawfiq defal ni sangat daare ni pap yeen kaddu kaddu yu cant lay doon d'abord mm-hmm. kaddu yu mbégte ndeysaan euh, ndax sama samba mm-hmm. yow yaakaar naa ñoo ngi soog a jataay wala parole bu Cheikh Ba waaw waaw jataay bi mel ni ñu ngi koy soog a koy doog a am waaye bu ñuy waxtaan day mel ne xamante ne at yu bëree bëri loolu cofeel rek la wér na dañoo bokk li ñuy def wér na kenn jaayut sa morom affaire déedéet déedéet yii jaay affaire amul sens déedéet kenn ku ci nekk hmm. la nga nekkee doy na la sëkk waaye nag Pape dafa lu am solo loo def li tax suñu jaxasoo ak yow gën a doy waar muy Pape danga maa fekk ci programme bu la neexoon nga jaay werekaan jaay ni fu toll nga fu kawe waaye ci man nga jubal si ñëw nuyu ma loolu soge ñu loolu ndax ci milieu bi lañ ne lu ne xew na fi lu ne barki Cheikhul Khadim lu ne xew na fi loolu moo gën a tax ñu gën laa ñeme gën laa jàpp waaye Pape lépp looy wax ci ñun rek bu ñuy déggante wasam wax danañ waxtaan lu toll ci ay waxtu barki Cheikhul Khadim te mosuñoo wax ci diw Pape barki a Khadim man ku may jàpp sëñ bi laa lay jàppee te yow loolu moo nu boole loolu laa doon dugal ci kàddu yi. loolu nag. Eh, yaa ni mel. ndeysaan ndax nit ki. comportement la ñu koy jàppee. ndeysaan dana wax ñu ko waaye nga jaxas ko gisanteeg moom xeeb ko. ndeysaan te du la gis xeeb la. dëgg li ñuy def. Mm-hmm. Euh, xam nga ci. Mm-hmm. ban position nga ci. ndeysaan xam nga ni. Mm-hmm. mission la. Mm-hmm. xam nga ni mbirum sëriñ bi la. Mm-hmm. te doo ci yaafus. ndeysaan man ngaa maslaa ku ne nag. Mm-hmm. waaye nag euh, xam nga. Euh, naka nga cee doxee. wallaahi looloo tax ma ñeme la. alhamdulilah ku ma gis nga fonk mbir mi ni ma ko fonkee mbaa nga gën ma koo fonk dama lu ko gën a rëy. déedéet. waaw mission sëriñ bi sëriñ bi du def rek anam cuune. déedéet donc nag yow mention spéciale nga nga war a def sa émission bi. Euh, fi doon ñi nga xam ci werekaan bari na. ndeysaan mën naa ne mën nga bujjee xam sax. ndeysaan. waaye lu waral nga nga nga nga a def sa émission. Mhm. woo ma téléphone ni ma yow laa ci bëgg a dalal. ndeysaan waaw loolu rëy na ci lu ma mënoon a ak lu mënoon a xewit mhm. damay bàyyi yitte yëpp ñëw def ndax sama nawle la d'abord. ndeysaan man man ku dul sama nawle sax du ci man dara bu ñu fa rawatina sama nawle. ndeysaan man philosophie boobu laay doxee. donc si télé bii. naa mhm. ngi ñaan ci barkebu Serigne Saliou Mbacké. amiin yàlla na jëm ca kaw. amiin yàlla na ngeen ko partout dans le monde. amiin. waaw fépp bëgguma benn télé daal féete ko kaw. amiin barki sax ñëw taataan si suñuy wax. Mhm. te suñu wax lépp di sëriñ bi. bu mhm. la na sa ndam. wallaay ndeysaan. ah donc tey mbégte laa ci am. alhamdulilah di jaare ñëpp nag. di jaare sama waajuru jigéen wi ne ci biir. macha allah di ko ñaanal. Oh, yàlla yokk wéeram. amiin ci barke Serigne Saliou. amiin di jaare sama soxna. amiin sama soxna di ko ñaanal moom it liñ <laughs> ciy sàkku si yàlla na ko yàlla yombalal allah ak képp sëriñ ndax li ma naan ñun moom borom këru eh, weerkaan yombul déedéet loolu bu na leen di tëdd si wallaay jigéen rek la ñuy waxal wallaay a gën a xam boo boo boo amul compréhension rek loolu mën dugg ci ay détails ndeysaan donc ñoo ngi siyaare ñëpp di siyaare Mouhamed bi nga xamante ni mm-hmm. mën naa ne moom sama technicien la ndeysaan staff bi la bokk mais technicien la mm-hmm. lépp luy wàllu décoration lépp luy wàllu luminosité lu mën di say lépp moo ko géré mm-hmm. tey jii lu ma ci am lu ma ci xew la lu ne rek moom moo ci gën ndeysaan fekk na moom Bambey defal ma ko mm-hmm. waaye jàppise mais moo nekk sama wet ndeysaan yor oto bi fu ne la nii dem ci ñi ma jàppale bu dee ba njëkk ndeysaan donc ku lay defal lool amoo fayal ndeysaan technicien yi nga àndal cameraman yi ñoom ay jàmbaar nañ parce que équipe bu jeune la ndeysaan liggéey bi amul moo ci war a jiitu wallahi donc daal di ñaanal sëriñ Mountakha bu yàgg fi loolu tànd ak wér amin kee sama rakk la bayaas ndeysaan ku ñaan bu yàgg fi loolu tànd ak wér macha allah Mountakha yàlla na fi yàgg tànd ak wér amin sëriñ Saliou Thioune yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér amin sëriñ Cheikh Saliou yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér amin di beral loxo di beral nuyoo sama mbokk wérekaat yépp mm-hmm. yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am ndam yal na ñëpp am sutura amiin yal na ñëpp am teraanga amiin yal na am ay contrat international amiin di ak ko ñeneen ak ñeneen di ko defee ñëpp amiin yàlla bu la ci kenn jiitu yéene nga ko ñëpp la ma sama benn waajur wax naan ma xolu jamaa nga yor ma waaye yow xolu jamaa nga yor <laughs> ndax ndeysaan émission bi lépp wallaay dangaa nëbb sa bopp di feeñal gaañ yi te lii mooy milieu bi lii mooy werakaan di siyaare soxna sunu soxna su tedd si eh, ni ko waxee rek jëkkëru wérekaan yombul ku ko suñu borom cëralee téyeel ndax ñi ëpp ci ñuy wax ak yéen ay soxna la ñuy doon waxtaan ba deux heures du matin trois heures du matin pambu milieu bi dafa métti jéggi naa programme fanaanee ko yendoo ñëw bëgg a nelaw fi may gàmmantee nelaw sama téléphone sonné soxna si dafa ñu nangu téléphone bi ne ma kii da ngay nelaw da nelaw waaye loolu maanaam ñun bu ñu bu ñu bu ñuy nelaw sax ku nu woo ñu jël la kon Pape Mboup mooy li nga seere léegi rek noo ngi ñaan sob yoon ak darajee boroom Tuubaa kon kàddu yu tàggoo yi wax nga ko waaye njàng rek nga koy tëddee ñu béggalee ko soppe yi di ñaan Mouhamed Niang suñu borom yàlla defal ko tawféex. amiin barke Serigne Saliou Ahmadu Bamba Ahmadori ay may Ahmadou Bamba Ahmadori lay ay may Ahmadou ay may Ahmadou mi nga xam ni kenn ko am di ko weccoo Ahmadou Bamba Ahmadori lay lay la la safar sunu seen gaa ngi murit Ahmadu Bamba Ahmadu rey lay lay la ku dégg màggal jëfe ko ni ko waxe aj nga ji xàtt nga buur Ahmadu Bamba Ahmadu wéy lay lay la um rangayoon ba leer na la nañ la renga ko bu wéy Ahmadu Bamba Ahmadu wéy lay lay la ñun ñi ci dunya noo ngi feetu ëllëg noo ngay bëgg Ahmadu Bamba Ahmadu wéy ay may may da daari tubaawa ca kanam yàlla ko jaga Ahmadu Bamba Ahmadu wéy ay may mani Ahmadu Ahmadu Ahmadu Ahmadu Ahmadu Ahmadu Amado, Amado, Amado, Amado. Ahmadu Ahmadu Bamba Ahmadu rëy ay may Ahmadu Bamba Ahmadu rëy ay lay la ba mu jógee te bëgg a bokk ci waa Ahlu Badar Ahmadu Bamba Ahmadu rëy ay lay la dem na ba ji te leen ci ñoom kenn sañ min taway Ahmadu Bamba Ahmadu rëy ay lay la may de daare tubaawa ca kanam yàlla ko jagal Ahmadu Bamba Ahmadu rëy ay may أحمد أحمد أحمد أحمد يا أحمد أحمد أحمد يا شيخ أحمد بابا أيمي أحمد بابا أيمي من أحمد مهدي برمي في doon ñi doon njaayxu ñoo dal ci kaw doon nelaw yi ñépp yeewu naan jaajëf Ahmadu jaajëf bala nga way Tuubaa ca kanam de Sëriñ Muntaxa xalifa nee na ay ca murid ne jëf ñi bu mu laal Ahmadu jaajëf wala way tu korona ba leneen mën a wàññi sunu pas-pas ci magal gi Ahmadu jaajëf Cheikh Ibra Fall lamp yoo woon wi nit na Bamba teewe na dexe ñëw na Ahmadu jaajëf may sa bige kumba faal moo njëkk sàmmum ahmadu ngir njëriñ la du lor ahmadu jaajo ne ñëw cheikh béca cum ñëw fësal cant gi def dineem sant waa di ahmadu jaajo danan ko wax tey ñun atubaa ca kanam jëf ñu nangoonge ahmadu cheikh baari mbàkke ne ma ahmadu jaajo cheikh fallu jàpp nal séeréer sëriñ saaliw ndigal ne na ma sëñ Ali moom jaamu sëriñ Tuuba Ahmadu Jaañ am san Maryaam ci mujjante muy dëkk la mu dala ca kaw ba ci ku ci ni meeng foo di jaawaare am san nu ci mujjante muy dëkk la mu dala ca kaw ba ci ku ci ni meeng foo di ku sa waay tee nim nu tee ma ni ku sa waay tee nim nu tee ab géwél bu repp jib xare lu mu jiwin xeex lu ci muccal te muy dëgg lu mu dala ca kaw ba ci suuf ku ca nim xeex foo di jaar na ci ku dégg waa bàkk bi ci géwél tey ma jóg du kot ko ngir Sëriñ Tuuba lu ci muccal te muy dëgg lu mu dala ca kaw ba ci suuf ku ca nim Obrigado, thank you Merci warna Masalah Dirinya pambuk baki Nyohando na pambuk Sunimi sama Berakanu Warum tubai Nyan sa borom yalla Deho nyo barki borom tuba ci sunu télé bi di kifni tv no ngi ñaan sa borom yalla defo ñu tawfiq defo ñu saadatu daarayni barki cheikhuna ahmadul khadim pap yaay amin لنا الوسطى والتوفيق يا الله امين ودبرت كل خداع تدرو بنا قبل وصولنا يا الله يا الله امين xewul yi nekk ñu di ko xaar daal amin bu nekkee ci kaw amin yàlla mi teg na ci suuf amin bu nekkee ci suuf amin yàlla mi bu leen génn amin bu génnee amin yàlla nu jege amin suñu jege ndeysaan yàlla bari amin su bari amin yàlla nañ ci jot amin buñ ci jotee amin yàlla na barkeel amin barkeel bu barkeelee amin nañ ci liggéeyal sëriñ bi amin te luñ ci liggéeyal sëriñ bi amin sëriñ bi def koy tawfiq ak ay xéewal amin jox ko àddina sëpp amiin ba corona bii daal. Mhm. yàlla na ko fi yàlla jëlee. amiin barkeb Serigne Sall. amiin a bi. Mhm. te a dem amul arrêt. Mm-hmm. yang na ñëpp am jàmm Pakai barke Serigne Thiam amiin barke Balla loo ma dese wel bilaay loo ma dese ya, lu ma ragaloon nga dàq mu dem lu ma soxla nga ñoo di mu ñëw maay saxati sant Serigne Saawaay sama sang ba man loo ma dese lu ma ragaloon nga dàq mu dem lu ma soxla nga ñoo di mu ñëw maay saxati sant loo ma dese ba mam loo ma dese loo ma sa ali loo nu dese lu ma ragal nga taxaw dem ma soxla it nga ñu di mu